now long mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko seetaanee démb rek combat bi waroon a dox ci diggante alin Seye numéro 2 ak ñaq jariñu combat bi nag mu la am moo tax ñu déplacé wu ñëw fii fas yéene waxtaan ak moom waaye nag dinañ seeti ñaq jariñu gars yi dañoo compliqué léegi waa kër ñàkk xaar leen ñu ñoo ngi ñëw mais comme moo blessé woon ba mënul bëree moo tax combat bi mujjul am ñu ñëw seeti ko masawu ko nuyu ko bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre Lutte TV point com ñu waxtaan ak moom ci li xewoon démb ak moom après fan la jëm nan la waajal woon combat bi yëpp dina ci ñëwaat ak moom maa ngi lay ziar Gaynde gi waaw maa ngi lay ziar di la bëggee di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax di sant yàlla rek julli ci Yonent bi di sant suma ñaari waajur di sant suma sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kaboro borom Daaru Salaam ak Gaawaan mu yàgg fi loolu te wér di sant supporteur Alioune Seye numéro 2 yëpp di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay Mhm. di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex ak taysiir ba ak Cherfaan. naka yaram bi noo fanaanu. sant nañ baax a a a baax. nelaw nga depuis ban heure nga tëdd sax. waaw démb guddee naa tëdd nag mais sant naa bu baax a baax a baax. Mhm. waaw. fecc nga def nga say bagage yi nga waroon a def ci biti yëpp ba dara desul lu doon nga bëre ngeen dugg ci géew bi. dama mhm. bëgg nga wax problème bi fan la jógee de A à Z. waaw problème bi fu mu jógee kay lu ne faa kenn du ko jeex. moom mooy gis nañ ni ñu fa demee yaa ngi fa woon te morom yaa nga fa ñëpp a nga fa woon ba nekkoon na en direct la nekkoon xam nga ñëpp gis nañ la fa xew ndax boobu sax moom mooy deuxième fois bi ndax njëkk na ma ko def. yaa ngi dugg ci waaw yaa ngi tooñ Alioune Junior léegi naan ko dégg naa police ba nga fanaan. Hmm. effectivement fa la fanaan ndax loolu moom moo nekk première cas bi. am na benn booy bu ñëw sotti sunguf mi mise en terre di waaw ci biti la njëkk a sottee kii ma njëkk a sottee sunguf boobu quatrième combat bi defe naa mi doxoo mhm. xam nga mu sotti mu sunguf ba maaju maaju ak Alioune Sèye ñoo ko koj xam nga joteeg moom foofu noonu ba ba ba zemi bi yóbbu yóbbu yóbbu kii yóbbu Alioune Junior mhm. bi bi bi ñu mujj jote nag boobu moom mooy boobu mooy deuxième fois bi kon xam nga ne ñoom xam nga ñoom ñoo sooke lépp quoi waa ñoom ñoo sooke lépp mhm. première fois bi ñoom ñoo réagir mais yow da nga bàyyi woon mu sedd waaw ndax am na loo xamante ni nag xam nga moom moom duma ko seetaan quoi waaw duma ko seetaan te mbéjum kanam mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam. ngeen dugg ci géew bi. waaw dugg ci géew gi. Mhm. mu demee. maa ngi def samay dernier réglage di def samay dernier butéel mu romb ma maa ngi dégg nag moom mu naan ay damaa saaga booy bi musuma koo saaga sama gémmiñ sax xam nga ku xool image yi sama gémmiñ ibbeeku sax pour wax ndax man miinu ma lool tàmm ma lool sama adversaire bi muy bëre sax du wax ak moom may wax ak supporter barki yaa Rasulullah di caméra yi moo tax may wax loolu. ba ma dalee bëri mbapat ba léegi laa mosuma jàkkaaroo sama adversaire naan ko dama laa dama kii bu dul ay jàkkaaroo signature te gis ngeen sama signature du ci wax du ci wax du ma ci leen lu débordé mhm. ma ci leen lu débordé sama signature gis nga nu muy demee gars yi doyel tàngal da def nii mais loo xamul xamoo ko xam nga moo tax nit dëgg donte dañ lay reesa nga wax dëgg mu ne man maa saaga booy c'est parce que ñoom xam nañ ne ñoo am toor ba pare xam nga mu bëgg mooy aal foofu ne ma maa saaga booy bi barki yaa rasulilah saaga ma ko. léegi mooy booy bi bi mu lay gisoo ko xanaa bi muy ñëw ci yow. non booy bi muy bu mu bu ma maa maa ngi sant mu ngi romb mais yaakaar ma ni dama ko sotti ndax boo gisee ma maa ngi koy bàyyi xel di ko di ko di ko suuraale. Hmm. mu dox deux pas gestu sotti ma ko. ok waaw. bu mu la ko sottee. bu fekkoon ñax moo def loolu. du ma ma du ma ko kii damay dem signaler ko arbitre ne ko gis nga ni moo sottee mhm. ñu def seen seen rapport mais kooku bokkul bokk lu mu amee lu mu sotti mhm. waaw loolu tax nag xam nga te nit ku ne nit nga nit ku ne nit nga nit ku ne xam nga am loo xamante ni xam nga bu waree demee noonu rek noonu lay demee mhm. mais dama ciy jéggoo supporters yeeg xam yeeg promoteur bi ñëpp rek. léegi bi mu la ko sottee lan moo nekkoon sa lan parce que man. fekk na dama ñëw dama ñëw di dama ñëw dama ñëw jàpp ko xëcc ko rek mu dóor ma. moom mu dóor la waaw tamit waaw. moo la njëkk a dóor waaw moo ma njëkk a dóor moo la sotti galaaj moo la njëkk a dóor. waaw image yaa fi. léegi ngay tamit nga nga waa waaw ma réagir. waaw ma réagir waaw. léegi li nekk sa gémmiñ bi lan moo ko andi la buñ la dóor wala dañ laa jëm. am na benn benn benn laar bu mu yoroon ak benn béykat mu taw moom la moom la moom la moom moom la mu dóor. ci ci moment boobu noonu. waaw ci moment boobu. sa boobu santiroon nga. moom bi muy kii am na ay bagages yu bëri yu mu yoroon am na ci moto bu mu yoroon am na ci ñaar loxo yëpp am na yu mu ci jëm la ko. waaw. am na ñu ne kuula la dugal de. Hmm? waaw ba tey ku nekk sa gis-gis rek. waaw mais yow yow yow mi nga xamante ne yow la daal yow yaa ci wax. waaw mooy li ma la wax am na lu mu yor ci loxo bi. xam bay jën la ak laar man mii man mi jàkkaar la moom koy xam naa ne loolu la loolu mais bi nga ko doon topp loolu est-ce na non instant boobu damaa gaañu damaa damaa damaa sentir ne damaa sentir ne deret bee génn nag ma ne comme léegi comme comme léegi loolu am na pare hmm. aca léegi jeex na waaw waaw noonu loolu looloo loolu doo nga ma tàngal gisoo boo gisee bi ma génnee di dem jëli ban beeg yooyu yëpp tàng moom tàng deret bi génn moom moo moo moo moo ma yëngal te instant boobu bañuta bañaatuma ci woon dara mm. waaw ndax damaa préparé sama combat ay weer xam nga def ci li ma war a def yëpp ànd ñi ma war a ànd ñëpp ñëw ba jour ñëw ba jour ba xam nga ay détails di ma ko di ko yàqal du ma ko nangul kenn mm-hmm. waaw ndax dañ ma ko def defati ma ko dañ ma ko def defati ma ko ci ay combat waaw ci ay combat waaw démb affaire bi mu amee presque stade bi wàccoon nañ ci ci ci ci bi mm-hmm. say supporter ak yenn ci ay supporter mm-hmm. mais est la waaw déggoo li ma la wax ne loolu daal kenn rafetu ko jekkul jaadul ci gis-gis waxatuma laa sax ci askanu làmb wax dëgg yàlla ñoo bokk ndey ñoo bokk baay sport moom bu boolewul warul tàggale. Hmm. xam nga mais dafa ci am ay ay ñoo xam ne dañoo laxasoo ak seytaane dañuy ñëw fekk nit ñi di dox jàmm di wax jàmm ñu ñëw dugg ci raxal ak ñoom xam nga loolu moom moo kii mais ñun daal li am ñu ngi koy ñaawlu di jéggalu promoteur bi. waaw kenn du ko rafetlu. waaw neexuma xam naa ne tamit neexu sama adversaire. yéen bëri amu leen ci part de responsabilité di ànd ak yenn nit yoo xamante ne dañuy dañuy yëkkati fitna. est-ce que loolu est-ce que loolu war ngeen koo nangu. non non mu nekk sa camp mu nekk camp ñi yëkkati fitna mu nekk beneen camp. Lamine du question de nit ñi yëkkati fitna ndax képp kuy uti jàmm ngay wuti xam nga mais dafay maanaam xër la xër xër xër gu métti yenn saa yi muy nit ki mu mu def loo xam ne sax bu ko def waaw mais kenn du ànd koo xam ne da lay yàqal kenn kenn kenn du am koo ànd koo xam ne rek képp koo xam ne te nga ko sa wet rek koo wóoru la ku la jege la waaw xëy na nag coow bu amee nit ku nekk da koy am noo koy gisee mais gars yi ñu ngi naan ñi ànd ak mbëri ñi ànd ak mbëri dëgg am na ñu si am histoire mais am na si ñoo xamante ni defar rek moo leen tax a jóg ba xam ba ba leneen fekk leen ci. Mm-hmm. te nag loolu moo ko àddu ñoo ànd yenn saa yi di nga bëgg lu baax ba fer musiba fekk la ci. Mm-hmm. waaw. along Sam Mitchell. Nice pocket pass to Gordon.